boo gisee li tax tey ñu daje fi euh, dañoo am lu ñu metti loo xamante ne euh, mënuñu ko ñàkk bañ génn exprimer ko parce que yéen ñëpp gis ngeen ne euh, tout récemment problème bi nga xamante ne moo téye réew mi moom mooy accusation bi ñu jël teg ko ci kaw Ousmane Sonko te ñëpp leer na leen ne dossier bi jàpp si dara li wane ne dossier bi jàpp si dara déjà gis nañ ne ci procès verbal bi ki ñuy wax aji Sarr li mu wane ci ci plainte bi bokkul ak li nga xamante ne même at bi nekk ci ci ci déclaration bi donc tey li nga xamante ne moom la ñuy gis soo ko di ko dund mu nekk injustice boo xamante ne sénégalais yëpp ñoom teg ni seen bët bi si njëkk moom mooy gis nañ ne dañ ko accusé de viol te am na tey rapport médical boo xam ne seetal na ko beneen bi si mooy gis nañ ne ndaw si nga xamante ne moom moo ko accusé moom si boppam. âge bu mu déclaré ci plaintam bokkul ak âge bi nga xamante ne moom moo nekk ci dossier yi loolu wane ne dossier bi jàpp ci dara kon man jàpp naa ne Macky Sall dossier yi muy wax ne bu ci tegee concom dëkk bi tax dossier bi ci la bokk parce que moom employé la bu askan bi Pastef nekk employé wu askan bi kon donc ñun ñii ku ci nekk da ngay jaay concours de compétence man jàpp naa ne lii tey démocratie wàcc nañ ci niveau bi gën a suufee senegal parce que bi ñu demee ba ñu dem ba ñu ne ah ñi ngi jéem a faagaagal benn opposant un employé du peuple teg ko ci ay preuve yoo xamante ne ñëpp xam nañ ne nekkul preuve bu dëgër loolu jàpp naa ne askanu Sénégal waruñu ko seetaan beneen bi si topp mooy ñëpp xam nañ ne senegal dégg ngeen talaatay ndeer ay jigéen ay bañkat yoo xam ne dañoo joxe seen nafsu pour garder seen honneur tey ji ñëpp dégg nañ ki ñuy wax Aline Sitoé Diatta sans compter suñu maam yu baax yi maam El Hadj sëñ Touba ah ah la non kii sa guide religieux yëpp waaw ñu fi jot a jaar yëpp gis nañ fi résistance tamit mais lu may wax mooy Sénégal jàmm moo fi mës a am kon donc nañu fexe ba jàmm jooju gën a sax tey nag tey bu ñu gisee sax Sénégal jigéen ñi li ñu fi def tey ñu gis ne Pastef au sein de Pastef ñu ngi arrêté ay jigéenu Pastef yoo xam ne dañoo demoon rek ku seeti di seen leader nga xam ne kon Sénégal démocratie bi kon mi ngi commencé ñi mi ngi commencé ndërmeelu kon tey jot na askan bi nga xamante ne ñun Pastef li tax ñuy reyante di indi suñuy xam-xam di indi suñuy compétence pour yéen askan bi la kon yéen tey tey yéen askan bi kon yéen tey askan bi tey boo leen demee ba gis ne ñu ñuy buntu xatal yéen ñoo la war a nekk suñuy premier défenseur Macky Sall comme ni nga ko daan waxee dossier yu bëri teg nga sa conc pour bañ réew mi tas te yow leer na la ne dossier bi nga gis nii yow sa bopp da nga ne sax si sa si sa interview RFI da nga ne complot yu yu ñàkk fayda yi kon déjà xam nga ne kon euh, dossier bi dossier bu ñàkk fayda la kon dossier bu ñàkk fayda bu naree dem bay taar réew yow Macky Sall la président de la République du Sénégal yow war nga si war a mën a jël ay mesures pour arrêter lii parce que Pastef ñi ngi topp seen leaders yi di leen arrêter benn par benn administrateur général Birame Souleye Diop Abbas Fall ainsi de suite ainsi de suite gis nañ arrestation tous azimuts yoo xamante ne teguñu ko fenn ñoo xamante dañ leen di jàpp ba pare di dem di wuti ji preuve ndax yow bi ngay ñëw nii nga fekkee woon Sénégal kon yow war nga fexe ba démocratie bi bu gënul avancer yow waroo ko wàññi. te jàpp naa ne pour jàmm mën a am ci réew mi parce que Pastef parti wu jàmm la subir nañ bépp violence rey nañ fi suñu militante rey nañ fi suñu militante euh, ñëw ne saccagé suñu siège ba léegi gisoo leen benn patriote bu manifester ñëwati nañ dem kër Ousmane Sonko récupérer ay dossier am lépp si kanamu sénégalais yi élection ñëw na ba jeex parti yëpp def nañ violence parti yëpp def nañ violence mais Pastef rek ngeen déggul ñu ne attaqué na nit parce que Pastef taluñu loolu ñun duñu taal dëkk comme Birame Souleye Diop nu mu ko waxee ñun xel yi la ñuy taal xel yi ak bët yi lañuy ñuy taal kon donc nag ñi ngi jël en témoin population sénégalaise ne leen ñun de suñu mbébét bi ñu am ci réew mi mooy defar réew mi yóbbee ko jëlee ko point A yóbbu ko point Z kon boo leen seetaanee ba Macky Sall du ma ne sax Macky Sall parce que moom comme nee na yëgul waaye même moom Macky Sall bu seetaanee bu seetaanee population sénégalaise seetaan ba ñu sànq Ousmane Sonko nañu xam ne ñun ñëpp ñu ngi ci danger du sëriñ du du du benn kër diine du benn sénégalais du benn nit boo xam ne yaa ngi yeewu Sénégal nekk si jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah